salaamaaleykum mbokk yi topp 24actu point com tey jii nag ñu daal di fas yéene def édition spéciale waxtaanee li nga xam se moo di Mauritanie ak élection yi nga xam se ne moom lañ génn ak jafe-jafe nga xam se ne am na fa àddina sépp di ko bàyyi xel ñu di waxtaan tamit li nga xam se ne moo di diggante Mauritanie ak Sénégal te jii nag ñu daal di fas yéene ànd ak ki nga xam se moo di El Hadji Ousseynou Ndiaye di eh, journaliste bu mag ci fi nga xam se ne moo di kër gi waaye tamit nekk ko xam se ne dafay daal di gëstu li nga xam se ne moo di li xew bitim réew El Hadji Ousseynou ñoo lay nuyu waaw maa ngi lay fay eh, moom Fatou di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ñuy topp ci 24actu.com. waaw jërëjëf El Hadj Sow ñu daal di gis ne tey jii dañoo fas yéene waxtaanee li li nga xam si ne moo di politique bi. Mhm. kenn du wax li nga xam si ne moo di Mauritanie te du wax li nga xam si ne tamit moo di njaam gi fa est-ce que mën nañu koo faram-fàcceel. jërëjëf euh, Mame maa ngi lay sant baax di la gërëm xam nga Mauritanie boo ko waxee rek euh, dëkk la bu nga xam ne euh, dañuy wax ne piccolo paese la c'est-à-dire ni ko italien yi di waxee rek dëkk bu ndaw la mhm. mais nag euh, li nga wax noonu dafa am solo muy wàllu jaam gi nga xam ne moom lañ fay waxtaane mais li ma leeral rek mooy euh, bu ñu nee jaam dafa bari ay euh, form yu nga xam ne am na ci c'est-à-dire boo nee jaam ci Sénégal ñu bari dañuy jàpp ne xëy na da ngay jàpp nit ki chaîné ko di ko di ko di ko dóor wala di ko rey wala def nangam nangam mais bi nga xam ne contrairement ak bi nga xam ne actuellement moo am ci Mauritanie parce que heure bi daaw fa lañ fekkoon ci élection yi comme waxee itam ci gëstu yoo xam ne dañ koy faral di amal mais li ñu la ci mën a wax rek mooy forme esclavage bi nga xam ne moo moo fa fa am euh, jamono ji ay séquelles d'esclavage moo fay am c'est-à-dire ay jeexital yoo xam ne dafay am ci wàllu ko jàmm ci gëstu yi nga xam ne moom la ñu def waaye tamit euh, li nga xam ne organisation yi nga xam ne dañuy xeex lépp loo xam ne euh, jëm na ci àq ak doomu aadama li ñu firndeel loolu loolu mooy li ci am parce que dafa am ñoo xam ne ay origine arabo berbère lañ maanaam ñoom dañoo juddu nekk ñi nga xam ne nag ñoom ñooy di ay maître am na ñoo xam ne dañoo juddu fekkoon seen papa nekkoon ay yoroon ay jaam am na itam ñoo xam ne ay origine négro africain lañ cest à ñi nga xam ne dañoo juddu fekk fekk tamit seen papa nekk ay jaam wala seen i mbokk nekk ay jaam ñoom tamit ñu euh, juddu euh, nekk ay jaam donc loolu mooy situation bi nga xam ne actuellement moo am foofu mais bu ñu ko waxee rek xam nga Mauritanie dafa dafa xaw a yaatu donte euh, daanaka bu ñu ko xaymaa la ab ñi fa nekk matuñu juróomi juróomi million ci ay doomu aadama mais nag tey boo waxee wàllu jaam Nouakchott di capitale bi am na ci ñu bari ñoo xam ne boo nekkee Nouakchott wala Nouadhibou wala Zouérat yu bëri ay yoo xam ne par exemple boo fa nekkee yu bëri yoo xam ne daf daf daf lay jaaxal mais nag euh, réalité la bu am la boo xam ne tey bu ñu demee ci dëkk bi nga xam ne saa à ci yeneen dëkk yi nga xam ne wala ci digg désert bi euh, loolu mbir la mu situation la boo xam ne dañ ko fay gis bu ci mel ni euh, Menendra foofu boo fa demee lu ko soriwul dara yu mel noonu dafay am mais dafay nekk esclavage boo xam ne c'est-à-dire domestique parce que am na ci ñooñu nga ñooñu ma la doon wax kan yi ñoom ay descendant d'esclave wala ñi nga xam ne dañoo judd nekk ay maître ñoom tey boo xoolee ñoom ay nit lañ yoo xam ne par exemple dañuy am ak jur dañuy am ay gile dem yooyu noonu liggéey bi nga xam ne ñoom moom lañ ci war a def ñoom ñoo ko war a defal seen bopp mais au lieu ñu def ko léegi nag ñi nga xam ne ñoom la ñu jëloon ñoo ñu nekk seen ay jaam ñoom ñoo leen di defal liggéey boobu noonu euh, donc mu nekk loo xam ne ñoom mooy nekk ci seen place mu nekk liggéey boo xam ne dañu koy def di liggéey te du ñu am salaire du ñu am droit envoyé seeni doom ñu dem ci euh, école bi ngir jàngi mu nekk tamit situation bu nga xam ne actuellement kenn mënu ko weddi fi nga xam ne nag euh, moo di Mauritanie mm. waaye li ma ci mën a leeral rek ngir mooy mm. xam ne nee naa la esclavage millénaire moo fa am cest à loo xam ne lu fa yàgg la nekkul loo xam ne tey la rek loo xam ne tey lañ ko samp wala tey lañ ko fa mas a gis mais loo xam ne lu fa yàgg la parce que am na ci loo xam ne dañ koy dañ koy donnante ci ci yenn yenn yenn famille mu nekk loo xam ne nag jafe-jafe la bu nga xam ne actuellement am na ci Mauritanie tey bu dee lépp loo xam ne jëm na ci ni ñuy goreelee jaam parce que tey goreel jaam xaw ma ba xam l'islam daganal na jaam wala déet am na ci lu bëri yoo xam ne boo ko defee dañ lay wax que ni da nga war a goreel ab jaam wala da nga war a def nangam wala da nga war a def nangam donc loolu nag ñoom tey gën dañ leen endoctriner c'est-à-dire euh, dañu dem ba nga xam ne ñoom euh, au lieu ñuy doxee seen xel mais xelu xelu ñeneen ñi la ñuy doxee parce que tey euh, ni ñuy ni ñuy affranciré jàmm cest ni ñu koy ni ñu koy bàyyee mu dem mhm. mooy lan maître bi moom mooy bind benn certificat ci loxoom boo xam ne da koy bind signé ko ne ah kii kat maa ko jàppoon seexunaa maa ko jàppoon jàmm mhm. bàyyi naa ko ci endroit ci del sàngam mhm. ci laa ko bàyyi moom këyit boobu ki ñu koy defal loolee la gën a farataal que ni lépp loo xam ne jëm na ci wàllu état bi ak yu ni mel. daal bëgg a xam xanaa yoonu dëkk ba tax terewuñ ko. waaw yoonu dëkk ba tere na ko comme dëkk yëpp parce que euh, wàllu jaam ci Mauritanie euh, dañu ko aboli c'est-à-dire dañu ko dañu dañu ko aaye ci boobu. parce que boo xoolee ñetti yoon aaye nañ ko ko 1905. Euh, aaye nañ ko foofu ba nga xam ne foofu booba ay jafe-jafe amoon na ca dëkk ba waaye tamit 1960 bi ñu amee indépendance boobu aaye nañ ko fa waaye tamit boo demee 1980 bi nga xam ne nag militaires yi ñoo yoroon nguur ga dañu fa aay woon lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jaam mais jafe-jafe bi fi euh, li ciy ëpp di ci am rek mooy loi mel noonu day am a doxalee loolu mooy li nga xam ne nag mooy li li nga xam ne nag mooy des euh, foofee ci euh, Mauritanie. Mm-hmm. ndax LSC na loi bu ko fa waaw comme ni ma la wax rek am na benn loi bu ko buy aayee foofu noonu parce que am na yoo xam ne promulgué nañu ko en 2007 am na benn loi bu nga xam ne dafay aaye lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jàmm parce que dañ ko criminaliser sax euh, ne képp koo xam ne def nga ko dinañ la tëj lu toll ci euh, juróomi at yoo xam ne dañ la koy tëj ba jàpp fukki ati kaso yoo xam ne bu fekkee ne cas d'esclavage avéré cest à euh, cas bu nga xam ne bu wér la boo xam ne dañu jàpp ne lii mbirum jàmm la mu nekk loo xam ne dañu ne dañ la koy tëj mais comme li ma la wax rek application bi dafay dees parce que loi yu mel noonu parce que problème yu mel noonu tamit ngir nga combattre benn nit benn benn benn affaire il faut nga xam dëgg-dëgg mbir mi lan li xew parce que munoo ne euh, da ngay xeex jàmm ba pare nanguwoo ko te dafa nekk li nga xam ne sujet la bu nga xam ne tabu la xam que am na ci ñoo xam ne ay kilifa yoo xam ne tey ñi ngi jiite yenn euh, bërëb yi te ñoom ay ancien maître lañu nekkoon nañ ay yoroon nañ ay jaam wala seen ay papa yoroon ko wala seen ay maam yoroon ko. Mm-hmm. naka lañ war a mën a euh, mooy li ma la wax rek parce que nit lu mu mën di doon nit ki mbir mu mën di doon pour ñu saafara ko d'abord dañu koy nangu ba pare mm-hmm. ñaareel ba mooy ñu fexe ba. Euh, séparés ñi nga xam ne ñoo di euh, jaam ñi ak seen ay euh, maître loolu mbir la mu nga xam ne euh, c'est très important bu fekkee ne bëgg nañ loolu mu deñ mais aussi tamit ñu sensibiliser ñi nga xam ne nooy askan bi nga xam ne ñoo nekkee foofu ñu gën leen a yee gën leen a yeewu yee ci li nga xam ne mooy situation bi nga xam ne mooy xew foofu que wax naa la nekkul ne dëkk yëpp lay maanaam nekkul ne dëkk yu mel dëkk yooyu lay am mais yaatu na fi nga xam ne nag moom moo di ci désert bi jëm kaw loolu bokk na ci li nga xam ne mais nag ñu xool état bi nga xam ne ban état la lañ war a mën a tànn ngir mu saafara loolu parce que tey ñi fa nekk Mauritanie dëkk la boo xam ne tey soninke yi ñi ngi fi wolof yi ñi ngi fi xartaan yi ñi nga xam ne ay ay ñoo xam ne ñoo ñoo composé dëkk boobu je crois que ni bu ñu jàppale ñi nga xam ne nag ñooy ONG droit de l'homme yi gën leen a jox baat gën leen bokk na ci li nga xam ne war na ko mën a xeex waaye tamit nit ñi yewul seen bopp parce que am na loo xam ne kenn du la ko defal parce que Victor Hugo dafay wax ne tàmbalee mm-hmm. ah, mm-hmm. li ñu mm-hmm. eh, ci mën a def rek mooy suñu jàngat parce que élection la nga xam ne juróomi candidat moo ci nekk mais candidat yi ki nga xam ne moom moo organisé élection yi mooy Mohamed Ould Aziz mooy mi nga xam ne moom moo nekkoon ci nguur gi mais malheureusement yoonu dëkk ba malheureusement <laughs> sax laay wax ci moom parce que yoonu dëkk ba mayu ko ngir mu nekkaat euh, li nga xam ne nag moo di mbër mais parmi juróomi kan euh, juróom-benn candidat yi nga xam ne ñoo amoon ci élection yi nga xam ne moom ñu ci réew mi euh, bokk na ci ñi ci moom mooy xam nañ ko ak IRA ak xeex gi nga xam ne daf koy xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jaam kan Amidou Baba ñoom tamit ak ki nga xam ne nag moo di kan Amidou Baba voilà kan Amidou Baba bokk na ci ñi nga xam ne tamit ñoom lañu ñooy li gën a fës mais li ñu la mën a wax rek soxna Maam Fatou mooy élection yooyu ñi nga xam ne nag avant loolu ku ci mel ni Biram Dahabet gis nañ ko mu def ay sorti di wax que ni euh, li nga xam ne nag moo di euh, foofa gëmul ne élection yu jaar yoon dina fa am ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi nekkee ci ko jege pour loolu nag man jàngat bi ma ciy def mooy moom euh, yu mel noonu nga dem ci rek ñaar rek moo am soit nga bu baax nga xool bu baax élection yi ngay jëm ndax élection yu leer la yu pare pour nga mën a dem ci nga dem bien nga boycotter parce que am na ay élection nga xam ne boycott amoon na fa donc loolu mooy li ci des nag ñu xaar ñi nga xam ne ñooy kuréel yi nga xam ne ñoom la ñu dénk

entreprise euh, bokkoon nañ fu ñu nekkoon euh, ci Maroc donc ak yeneen ak yeneen ak yoo xam ne am na ci mais problème bi Mame Fatou problème bi dëgg-dëgg fi muy nekk mooy euh, moom Ghazouani moomu mhm. dafa teel a wax ne moom vainqueur la ci élection yooyu maanaam daf ko gagné mhm. ak cinquante nangam pour cent avant que ni commission bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllu élection yi nga xam ne moom foofu avant ñuy leeral lépp loo xam ne jëm na ci loolu moom daf ko teel a wax donc loolu nag nekk jafe-jafe man xaw ma lan moo tax mu gaawtu ngir wax loolu te en tant que ku mel noonu waroon na mën a xaar ba nga xam ne kuréel yi nga xam ne moom la ñu dénk loolu ñu daal di communiquer li nga xam ne noo di résultat yi moom mu dog di ci wax parce que Sénégal boo xoolee fii nii mm. waxuma la sax en tant que candidat bu ne man gagné naa mm. mais Sénégal yaakaar naa premier ministre ba rek moo génnoon def benn sortie ne gagné nañ mm. mu jël coow lu mel noonu je crois que ni loolu tamit nekk jafe-jafe bu nga xam ne am na foofu waaw El Hadj Socé tamit ban jàngat nga am ci li nga xam se ne moo di résultat yi génn bon jàngat bi ma ci am résultat yi euh, changement de li ñu jot a li ñu jot a euh, am parce que Hajwani moom mi ngi ci 52 virgule 1 pour cent yoo xam ne euh, votel nañu ko euh, moom gagné na ko Biram Dahabet boo ko xoolee mi ngi ci 18 virgule 58 pour cent ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ki nga xam ne moom moo di euh, kan Amidou Euh, Baba nekk na ku nga xam ne def na maanaam teg na jéego bu nga xam ne amal na ko euh, ci ci élection yi waaye nag am na fa ay parti yu mag yoo xam ne par exemple tey bu fekkoon ne dañ lay wax Sénégal mën nañ la wax que ni ay parti PS bëgguma sax tudd turi parti yooyu foofu yi nga xam ne ñoo nekk Mauritanie mais ay parti yu mag yoo xam ne bi ñu demee ci élection yi ren 2 pour cent la am mu nekk taux bu nga mu nekk lu nga xam ne aussi euh, lu lu faible la mais kan Amidou Baba nekk na ku nga xam ne vraiment ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu bàyyi xel la mais aussi Mohamed Ould Boubacar itam xam euh, doon bàyyi xel ci réew mi waaye kii euh, ndax am na parti islamiste bu ñuy wax tawasul boo xam ne moom itam parti boobu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppal tànk ak euh, ñi nga xam ne ñu yaatu ñu nga xam ne ñoo nekkoon ci kujje gi donc jàngat bi ñu ci def daal en tout cas am na coppite goo xam ne am na ci bopp ñi nga xam ne nag ñoo nekkee ci Mauritanie par rapport ak li nga xam ne moom mooy li xew léegi waaw moo di kan Amady Ba ak hmm. Biram Daxaba nan nga ni ma gisee seen mbir mooy Biram Daxabet moom yaakaar naa ñu bëri ràññee nañ ko ak liggéey bu muy def benn euh, ku ko wax xeex bi nga xam ne daf koy xeex ci wàllu jàmm mais Mame Fatou bul fàtte ne Biram Dahabet nekkoon na élection yi nga xam ne moom la ñu mujjee def 2014 bokk na ci ñi nga xam ne demoon na ba am euh, ba moo jëloon deuxième ci li nga xam ne mooy élection yi nga xam ne nag moo amoon 2014 Biram Dahabet xeex na ba am li nga xam ne moo di place ci assemblée nationale euh, te ku xam Mauritanie ak ni mu demee ak situation bi nga xam ne moo fa xew ak wàllu jàmm ni mu koy xeexee mais jot na docteur docteur honoris causa maanaam relation yi maanaam euh, euh, lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jàmm ak yeneen ni organisation yi nga xam ne mm. ci yeneen ni dëkk la ñuy nekk yoo xam ne dañ koy dese dañ koy jox ay prix yoo xam ne moom euh, ak vraiment mu nekk ku ràññee ko bu mu ngir jeexal rek ñëw ci kan Amidou Baba moom moo ko yàqal parce que dëkk la bu cosmopolite foofu parce que dafa dajale wax naa la ko sànq léegi ay ñeneen ak ñeneen parce que ñii ñi ngi fii ñii ñi ngi fi xeet yi ñi ngi fii man élection yi nga xam ne moom laa fi mujjee dem muy élection locale yi boo demee am na ci ñenn ñoo xam ne xëy na seen gëm-gëm li mooy dañ naan la euh, tey kat fi nga xam ne mooy Soninke bi moo gagné wala Soninke bi nangam euh, donc loolu cest euh, à xeet am na fa mais léegi ak coppite am na fa xëy na loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo gën a suuxal kan Amidou Baba parce moom jàppoon nañ ni ñu bëri jàppoon nañ ne moom mooy candidat wu loolu nag nekk jafe bu nga xam ne andil na ko parce que bu ñu xoolee résultats yi nga xam ne moo moo moo fës ak li mu am wax dëgg yàlla tuuti na lool ak li nga xam ne ñu bëri moom lañ doon séntu ci moom mhm. gis na tamit jamono bi réew ma tàng na jër mhm. ban taxawaay lañ a am rawatina Sénégal bi nga xam si ne dafa xaw a jege waaw jërëjëf Mame Fatou euh, réew mi tàng na actuellement parce que après bi élection yi amee ci Mauritanie bi élection yi jàllee euh, ñi nga xam ne mooy euh, commission bi bi mu dëkkee wax naa la ko sànq léegi Ghazouani waxoon na moom moo gagné élection yi avant ñu koy si siiwal waaye bul fàtte ne commission électorale nationale indépendante waxoon nañ que ni ñi nga xam ne ñoo nekkee ci ku jege waxoon teeloon nañoo wax ne maanaam comme maanaam la boo xam ne dafa ñàkk iiba maanaam indépendance amatu ci dara voilà euh, donc euh, ngir ñëwaat rek euh, ci sa laaj bi mm. donc liñ ci war a taxawaay bi ñu ci war a amee moo di senegal mm. diggante senegal ak Mauritanie mm. benn la parce que dëkk la boo xam ne diggante boo taxawee frontière Mauritanie uh-huh. di gis senegal boo taxawee frontière Sénégal di gis Mauritanie boo demee Mauritanie tey fi ci mel ni comme fi ma la waxoon Souayrate boo fa demee Tabrazayni Big Market Carrefour BMD yooyu yëpp ay sénégalais ñoo fa nekk yor fa seen ay boutique yor fa seen ay place jiite fa ay nit di fa liggéey yor fa seen teranga Sénégal fii am na ay Mauritaniens yoo xam ne ñoo ngi fi mais li ñu war a xel mooy ñaata euh, doomu réewu Mauritanie ñoo nekk Sénégal ñaata doomu réewu euh, ñaata doomu réewu Sénégal ñoo nekk Mauritanie yor foofu seen taranga mm-hmm. mais euh, Sénégal ak Mauritanie dañu bokk loo xam ne yu bëri yoo xam ne mënuñu ko séddoo bul fàtte ne événement yi nga xam ne amoon na ci diggante Sénégal ak Mauritanie am na ay jafe-jafe yu fa amoon mm-hmm. ñaata nappkati Sénégal ñoom ñooy dem ci géeju Mauritanie gi di fa nappi ñu leen di cribler seen ay seen ay gaal mm-hmm. a ñàkk bakkanam donc loolu lépp mu nekk diggante boo xam ne euh, vraiment jàmm rek moo ci war a xew ndax euh, ñi ngi lay wax que ni pétrole bi xew bi feeñ wala gaz bi feeñ ci diggante Sénégal ak Mauritanie loo xam ne Sénégal ak Mauritanie ñoo ko séq i relation yoo xam ne yaakaar naa tey lii xew ci diggante Sénégal ak Mauritanie je crois que ni euh, bu ñu ko doon bu ñu ko doon bu ñu ko doon lim a wax rek mooy diggante la bu nga xam ne fa war a mën a xew parce que lu wokk dëkk bee dina war wokk xuri li nga xam ne mooy kii mooy mooy mooy mooy dëkk bee d'abord ma ngir jeexal rek ma ñëw ci taxawaayu sénégalais parce que Euh, souvent fii gis na dëkk ba tàng na fi mu toll manifestation yi mi ngi am ah. xam naa di ngeen ko gis ci image yi ah, mais am na ci ñu nga xam ne ay policiers yoo xam ne ay mustixaar yoo xam ne fi mu toll nii gars yi ñu ngi leen di brutaliser ñu ngi ñu ngi leen di song mm. waaye askan wi tamit ñu ngi leen di jàpp parce ne ki nga kan Amidou Baba mm. ki ji teg nañ ko loxo bul fàtte ne commission ba ñi nga xam ne nag ne moo nekk foofee mm. def na benn déclaration yëkkati ko jëmale ko ci euh, yenn dëkk yi parce que dafa jàpp ne fitna bi nga xam ne actuellement moo am ci Mauritanie bëri na dëkk yu nga xam ne ñoo wër Séné ñoo wër Mauritanie yoo xam ne dugal nañ ci seen loxo la wax mm. euh, ba muy wax nag dafa cité yenn dëkk parce que dafa cité Sénégal mm. nee na Sénégal bokk na ci Sénégal cité na ko mm. cité na dëkk bi nga xam ne moo di Gambie cité na dëkk bi nga xam ne tamit moo di Mali léegi nag euh, situation boobu noonu Sénégal yi toog na tekk te foofa doomi Sénégal nekk fa te ku la wax dëgg man mm-hmm. maa ngi dégganteeg ñoom mm-hmm. tout le temps mais ku la wax dëgg xam ne doomi Sénégalais yi fa nekk mënatuñu nelaw ba mm-hmm. yandoor ah, ndax jafe-jafe yi nga xam ne moo am foofee kenn mënatu cee nelaw ak fitna yi nga xam ne buñ koy gis ci internet bi depuis ñoom depuis ay fan a ngi nii foofu amuñu internet donc taxawaay bi état bi war a am mooy mm. protéger ay doomam ni ko yeneen dëkk yi defee ni ko France di defee ni ko mm. Amérique di defee mm. ni ko yeneen dëkk yi defee protéger seen ay doom ba nga xam ne lu leen wokk ñu taxaw a am actuellement situation bu doy waar la boo xam ne kilifa yi war nañ ci mën a jóg euh, ngir ay saafara ci li nga xam ne mm-hmm. moo xew foofee ca Mauritanie mm-hmm. uh, waaw jërëjëf El Hadj Ousseynou ñu ñu cee tegtal yu am solo mm-hmm. yoo xam se ne nga ñu ko ci li nga mm-hmm. xam se moo fa xew ni ci Mauritanie mm-hmm. ñu daal di wax ne xam naa tamit jëf yi jataay bi dafay daal di jeex ñu daal lay bàyyi nga daal di tàggu euh, euh, di la gërëm di sant mboolem ñi xam ne ñoo ñuy topp ci 24 actu parce que lii euh, soxlaa rek ñu ñëw leeral leen li nga xam ne xëy na xamuñu ko woon El Hadj Ousseynou itam ñi ko ñi ko xam dëgg xam nañ ne actualité internationale da ko yàgg gëstu Mauritanie dem naa fa def naa fa ay enquêtes yu bëri yoo xam ne def naa ko ci Mauritanie donc je crois bien ju mel noonu bu amee situation am jamono ji dëkk yëpp daal di jël seen bët daal di koy teg ci tan Mauritanie di xool tey doomi sénégalais nekk fa euh, baax na bu ñu leen tanee ci tuuti wala bokk luñ ci xam ci lu néew loo xam ne bu ñu ko waxee dina mën a ubbi bopp xelu sénégalais yi mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu waxtaane ko donc loolu moo nekkoon objectif bi xam ne moo taxoon tey mm-hmm. ñu ñëw euh, ngir leeral loolu ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yow tamit ci euh, question yi ak ni muy demee mm-hmm. mais aussi vraiment ak liggéey bi ñu ngi la ci sant baax di la ci gërëm di ci kontaan bu baax di nuyu nag nga may ma ma nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk foofu parce que ah, vraiment bi ma fa nekkee aussi dem naa nekk naa fa ay yu baax yi nga xam ne ñoo nekk foofu mm-hmm. euh, Ami Samb moom itam bokk na ci ñi nga xam ne vraiment ay jigéen yu baax lañ Fatou Roqeya vraiment ñoom itam ay jigéen yu baax lañ yoo xam ne actuellement tey ñëwuñu kenn ay jigéen yu boroomi teraanga yoo xam ne foofee la ñu nekk di liggéey foofee la ñu nekk lu ñu am presque foofu lañ ko amee mm-hmm. mais aussi lu ñu am dañ koy indi Sénégal mm-hmm. euh, Baye Cheikh euh, kan hmm, sama gars yëpp yëpp Garage Sénégal Carrefour BMD ah ñi nekk foofu euh, Basra ba stade Basra nuyu gars yi nga xam ne ñoo nekk foofu yëpp daal donc di la wax ne loolu moo nekkoon li ñu kii di wax ne kontaan nañ baax a baax mm-hmm. merci beaucoup eh, waaw kay jërëjëf El Hadj Cissé waxee woon léegi rek xam ngeen bu ngeen déggee ni muy limee dëkk yi ngeen xam eh, ñu daal di war a mën a taxaw nag ak suñu doom ya fa nekk nag daal di eh, nekk nag loo xam si ne dafay ko def muy soññe boo xam si ne am na solo lool mu nekkoon nag émission boo xam si nag spécial lañ ko defoon nag daal di koy jëmale ci li nga xam si moo di Mauritanie ak yi nga xam si ne moo fa xew di leen jox dig daje nag ci beneen émission di wax ne nag Cheikhouna Ndiaye moo nekk caméra ak ki nga xam si ne moo di Moussa Ka Khady Niang moo nekk ki nga xam si ne moo di ki ñuy monteel ñu koy sant bu baax di ko gërëm di leen jox dig daje ci beneen jotaay jërë ngeen jëf